ak képp koo xam ne jot nga ci euh, vidéo bi ñu ngi lay wàccee wàccuwaay bi la yàlla wàccee di sant yàlla tabaraka wa taala ci xéewalam yu yaatu te matale di tuub itam suñuy rëcc-rëcc di ñaan yàlla xoole ñu matam bañ ñu xoole suñu matadi bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon dañu ñëw ci benn mbir moo xam ne bugguñu mu gudd lool bu ko laajee itam mun naa ma gudd tuuti ci benn mbir moo xam ne ci suñu silsila bi jàppatuma sax ban numéro exact lañ toll su ma juumul ñu ngi ci onze jàppatuma daal exact ban numéro lañ toll kum silsila bi nga xam ne dañ ko tuddee li nga xam ne li ñuy woowee ibaadu fii ci senegal walla ci feneen ñenn ñi leen woowee ahlu na non ñoom ñuy woowee seen bopp ahlu sunna adiyaa u salaf ñu leen di woowee salaf ñu leen di woowee ibaadu ñu leen di woowee wahabi léegi ñooñu wahabi yoon yooyu nga xam ne dañu tàmm di saaga lool sëriñ si di tar lool ci mbirum tasawuf te tasawuf bi daal shirk la nangam nangam nangam di wax lu nekk ku nekk ci tasawuf yow dof nga ñii te fekk ne ñoom ci boppam jamono ji ñuy wax loolu téere yi ñuy jàng Banan naan nañ sunna téré ñi jang la wax ba japp nañ sunna daanaka ñu ci ëpp ëpp ëpp ay fa lañ limoon nañ ci ñu bëré bëri fokk na amna na numéro bo xam ne daanaka yooyu rek la lim ci an nawawi imaamul suyuti jalaluddin hafiz hmm? ibnu hajar al asqalani al haythami, euh, demet hmm? ibnu salah, ñoo nga xam kuy tuddu hadith dañ leen di tuddu hadith ñi tafsir itam ci ñu baree bari ñoo xam ne ci boroom xam mi ay ci ci tasawuf lañ nekkoon ibaadu yi nag tar lool ci wàllu tasawuf nga xam ne ñoom da nekk ci maanaa da ngay naan benn kaasu ataaya ñu ñëw saaga la ci kaasu ataaya boobu génnee la ci diine na yow dekktoo ci sunu nekktoo ci lislaam ba pare lañ la xasee la nga naan noonu lu toll ni kaasu ataaya ñoo ñu dem naan ci géej ba pare ñëw toog jàpp sañ njàmbur nag boo waxee ñu ne ñoo ne ci sunna ñu ne waa sunna ñooy woote jëmale ci sunna bi fahmi salafil umma suñu silsila bi nag dafa jëm ci la nga xam ne dafay leeral lépp lu ñuy saagaan maanaam suñu lancé bi ñu nekk lancé bi ñu nekk mooy lépp lu ñuy saagaa tasawuf ñoom waxaa bi yu ni wala ñu koy takfiiree waa tasawuf dañ koy indil ñoom ci seen téere yi ak ci seen téere sëriñ si yenn yi nga xam ne dañ koy weddi itam yii alquran saxal ko yii xadis yonent bi saxal ko lii jëfi saxaaba yi saxal ko wala taabiin rey wala atbaaw taabiin suñu silsila bi loolu la léegi nag ci biir loolu certes man bëriwuma tànk Facebook mun naa toog deux ans ferme yoo xam ne du dugg Facebook deux ans mun naa ko toog doo xam ne du ma connecté Facebook léegi nag par hasard rek laa dugg Facebook am message moo doon lire ba faf tombeek benn benn benn vidéo boo xam ne ci conte Cheikh Baye Niass la nekk dinaa teg vidéo bi ñu ñëpp ñu ànd ko seetaan ma wax leen li tax ma indi vidéo bi ak lan laa ci bëgg a leeral incha allahu rabbi ndax dañ koy boole waale ci silsila bi vidéo bi dama koy résumé ba pare nga xam ne bu mu ko tegee nit ñi dinañ ko comprendre ak maanaam lan mooy sama maxallu shaahid ci vidéo bi Video man dama setan Cheikh Baye mu ne dafa am ben ibad bu ko bu ko xoj la ko mën tuddé bu ko xaar buntu kërëm dal mu ñew mu ne ko yaa yaay Cheikh Baye yaa demone des s yaa wax nangam nangam nangam ibadu bi nak diko tahaddi diko lance def nan ko yow da nga wax lo xamni du deug ak yu démé non mais man lima intéressé ci wax ji lima waxtaan ni mo ku dem ci ci page Facebook bu Cheikh Baye Niass da nga ko fekk man nak bima ma seetaanee vidéo bi réaction bi mo ñëk am parce que jour bobu période bobu sa dafa tomber loon ma waron def waxtaan ci ci sharh sunna bu Barbahari yi na ci ay commentaire mais def ma ci woon benn numéro bu am ci mais indoon na ci quel commentaire ni ben aperçu bu am nit ñi dañu xam fa la jëm ci ci période bobu seetaan na vidéo bi réaction bi ma njëkk am moy dama wo ci euh, dama ko envoyer dama suñu jël dama ko envoyer message te itam. woo naa ko tey tey nii woo naa ko appel whatsapp woo naa ko itam appel normal mu sonné cinq fois après mu coupé comme xaw mu ndax moom Cheikh Baye laa bëgg a wax woo naa ko cinq mu sonné cinq fois ko yooyu mais comme xaw ma ndax dafa jàpp wala dafay noppalu moo tax insisté wu ma c'était pour wax ko ni kat sa vidéo maa ngi ko bëgg dugal pour am ñu ci leeral euh, waaye xam naa nii la ko yàlla bëggee woon léegi vidéo boobu. soxla na ci ñetti mbir soxla naa ci man ñetti mbir ba ñent ba juroom benn bi mooy dañ ci wone li ñu tuddee ab wahabisme wahabi yi ñeme yàlla gi ñeme yàlla ba ñeme waat ci lu leen wóorut muy benn benn bi ci des itam mooy ni seen téere sëriñ ñi ni mu leen umpee ñoom maanaam ñi ñi woowee ñi ñi woowee ay immay ci ñoom seen nu ni mu umpee loolu itam dina feeñaale ci waxtaan bi ñemewaat ci loo xamut sa bind sëriñ xamoo ci dara ba pare ñeme woote woo sunna ne ne yow yaa ci sunna waaye beneen bi ci itam mooy li ñuy xasee tasawuf di wax ni waaw ñoom dañuy wax ni seen sëriñ si dañuy wax ni ku topp diw safar nga jëm nangam nangam dañoo ëppal ci diine dinañ dina leeral itam ci biir waxtaan bi beneen bi ci des itam mooy li may faral di wax toujours ci sama silsila ab waxaab yi maanaam lañuy ñuy woowee ibaadu fii dañ lay teree naan benn kaasu ataaya lañ la teree naan noonu benn kaasu ataaya ñoom ci lañuy dem naan ci géej ñoo toog jàpp sa ñàmbur boo waxee ñu ñàngal xool géej cëkkal tubay ne la ñoo ne ci ahlu sunna ñoo ñoo ñu ñuy ahlu sunna jeex na léegi dañu play vidéo bi c'est-à-dire vidéo bi waa ji dafa taxaddi Cheikh Baye Niass waat ne ko billaahi wallaahi li nga wax ci sharhu sunna amul li nga wax ne imaamul barbaxaari moo ko wax amut barbaxaari musu ko wax waa ji dafa waat ci yàlla xam naa ni nag ñàkkul aussi peut-être peut-être Cheikh Baye amaana mun na am mu gëj a gëstu bi mun na am itam waa ji bett ko mun na am itam page bi xëj na dafa daf ko tewlu ndax duma ne jàngu téré mais dama nan tewlu ko parce que waji insister nako na ko lu yag yàgg yàgg mënul indi exactement wax ci waxon ci olof fan lako ko Barbahari waxee ci arab c'est-à-dire Cheikh bay dafa indi rek ne waaw wax ji lii la ci déggé té pourtant loolu mi wax ni nekku ci téré mu ci téré bi fess fa del nak la wax na jox misaal misaal incha allahu rabbi légui ñu and sétane vidéo bi euh, après ma ñëw ci mandi page yi rabbi am dama lay ñaan. portable mi ngi déchargé ¿eh? de. waaw non taxawal balaa moo taw. yaa ngi taw parce que da nga wax wax bu rëy da nga ne Imam Barbahari moo ne. xaaral wax dama koy lii dama ne Imam Barbahari nee na Imam Barbahari moo ne dama bëgg mu yokk ci laaj ma ne ma réeral leen. wala leen ne leen kii nii yéen lay réeral ci kaw fu mu nekk nii fan la Imam Barbahari wax déglu leen waxal li wax ma ma ma ma bëgg c'est que dama bëgg a liir su ma liiree pour mu am sens nee na moom wax wax ko yaa ne Imam Barbahari moo ne képp koo xamante ni wéy dégg nga dara téeréen bi yéefar nga yaa ko wax wala déet. liiral li ma la jox ah waaye. Imam Barba li ma yor de wax ko lii. moo tax man wax waxal wax ma ma doon lii. ak ah, fan la ko wax léegi dama bëgg nga wax fan la ko wax. waaw fan la ko wax maa ngi yëngu affaire bi yaa ma ko yaa ma ko jox fan la ko wax. wallahi wax ko. wallahi wa rabbul kaaba wax ko. maa ngi yéen affaire bi dama bëgg a balaa maa lii ni wax mu loon dafa moom li wax wax li nga waxoon ma lii. boo paree pour lii nga wax ma li may wax nii. waaw yéen ñiy déglu moom dama bëgg mu jaaral ci li mu jaaral dafa ma jox benn affaire pour ma lii ci Imam Barbaha nee na Imam Barbaha bi moo ne lii ma affaire bi de dama ko ngeen dégg ne wax ma loolu. ngeen baal nag vidéo bi dafa xaw a gudd foog naa cinq minutes la mais ñu bañ ko yàqamti parce que damay bañ mu mel ni dama dagg vidéo bi dagg waxu kii dagg moo tax ma jël li ma kii boobu yëpp daal waaye li ma ci soxloon quelques secondes la wala quelques mais damay bañ mel ni dama dagg vidéo bi am ñu ciy nëbb c'est-à-dire sama maxallu chat ci vidéo bi mooy waa ji dafa laaj Cheikh Baye ne ko ana fan la Barbahari waxee ni ku weddi dara ci sama téere bi yéeféer nga fan la ko waxee noonu Cheikh Baye nag ñàkkut amaana mu fàttee page bi fu nekk ki demee noonu mais page bi mu indi moom Barbahari waxut loolu Barbahari dafa wax ni foofu ku weddi daal ci sama téere bi jàppal ni nitu bi da euh, dafa topp bànneex bakkanam maanaam ci bànneex bakkanam la ko weddee waa ji nag waat ne billaahi wallaahi Barbahari musut wax ni ku weddi denn ci sama téere bi yow nekkatoo ci lislaam yéeféer nga te loolu waa ji di weddi ne amut muy ci téere bi dinaa ko dugal dinaa capturer page bi fii ngeen dugal ngeen gis ko incha allahu rabbi mais ñu seetaan vidéo bi euh, incha allah rabbi. wax dafa ne moo ne képp koo xamante ne da nga ci téereem bii ci li ma jox lii de képp ku wégg ci téereem bi yéeféer nga man ma liir loo xamante ne Imam Barbahari dafa ne képp ku weddi alquran ak weddi su ne sa sam nga sal loolu loolu doon nga loolu laa gis nii ma ma ko. sa wax wax waxal li wax yow. lii la ala ji sa diggante yàlla. mu mën a ji bul changer page. du changer mu page page. ma ma ko par. dem na page 36. ay ay ay ji portable xalaat. sëñ bi yow portable xalaat. yow li may waxee nii moo ko laal li may waxee nii daanaka moo ko laal. du du laa lire. sëñ bi ragal yaa yow yow ah yow tamit. muy yé. page bi fii la ko. waaw dama ne. xaaral ma leer. la waxoon bàlle non non page 132 laa ko jox. ci raqam numéro 153.

kaamilam mu ne. donc man قد أكملت آه، قد أكملت في السنة ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك فيه أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب الهوى ومن جحد أو شك في حرف من القرآن دغ من القرآن دقل سما جاي أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى ولقي الله تعالى دقل فيه فلا فلا وخني يفر يفر له فاتق الله فاتق الله آه، أنا مزا فلا يا مزا من فاتق الله وحده وتعاهد waa mu ne waaw mu ne fattaqillaha wahdar wa taahad eh, imanak damay laaj xaaral xaaral non non non dégg nga maa maa maa maa wax léegi dafa dafa nañu xaaral gars yi dafa nañu fii imaam imaam bi dafa wax ne képp koo xamante ne eh, da ngaa weddi dara ci téere moom loolu wax ne képp koo xam ne weddi dara ci téere yéefar nga wala nga weddi leen ci téere bi fan la ko wax laa leen dee arrêté su mën ngeen lire yéen ñu ngi fan la ko wax. subhanallah fan la ko wax leeral fu mu ko wax fan la ko wax moom lan la léegi sànq fa man aqarra bi ma fi hada alkitab fi hada alkitab ba tey leeral voilà xool leen page bi ma ci maqaal cent cinquante trois ñu dem baal ma rek fii haadal kitaab ban téere lay wax ban téere lay wax fii haadal kitaab voilà fa man aqara bi fa man aqara bi ma fii haadal kitaab wa aamana bihi wattaxazahu imaaman képp koo xamante ne ni d'accord na ci li nga xamante ne moo ñëw ci téere bii maanaam téere bi mu bind moom lay wax qabla haada jumla bi avant fii man fii avant fii la dina leer avant fii pour ñu xam ban kitaab pour ñu xam ban kitaab lay wax yow la yow la voilà. fii c'est-à-dire diggante bii ñu toll nii ñoom ñaar yow pour nga àtti leen dafay yomb comme xam nga maqaal bi muy wax rek cent 153 yow da ngay jël téere bi rek nga tëj maqaal boobu su ko defee di nga xam lan moo ci gën a leer ci ñoom ñaar daal mais li waa ji euh, Ibaadu Wahabi bi li muy wax nii. loolu la Barbahari wax ci page bi léegi nag Cheikh baay moo wax ni ma mafhumu muxaalafa bi mooy loolu mu wax moom ibaadu bi ne ko déedéet yow amoo droit wax nii laa ko déggee da nga indi da nga war a indi léegi fii nii Barbahari du exactement li Cheikh Baye Niass wax la wax fii après page boobu naa ko dugal ñu siiwur kii bi xam naa nag waxaabi yéen bu fekkee yii lañu xewal di ko jaay <laughs> nañ dem rek seen bés muy ci bési seen bés muy ci bési dama xamut nan laay def bopp waxaay bi koj ma naka laay def rek bapp waxaay bi koj ma naan dafay bettaate maa ngi séntu loolu incha allahu rabbi lii 2011 laa ko jàng. waaw ah, d'accord te xam naa ne yow yaa ngi koy soog gis tey. indi ma woon la ci li ma woon. wax ñu fan la fan la fan la ko ku lii. déglu man aqara bi ma fi haadal kitaab. Hmm. képp koo xamante ne nii d'accord na ci li nga xamante ne moo ñëw ci téere bi. Hmm. wa bi bihi mu gëm ko. Hmm. téere bi lay wax. wa taxazahu imaaman mu gëm mu jàpp ko mu nekk imaamam. wala mu shukka fii harfin minhu te amul benn sikk sàkk ci benn xaraf bu ñëw ci téere bi ولم يجحد حرفا واحدا تامل بين حرف بو خمانتيني ديرم لا لا لا تخا تي لي دب جمله بو خمانتيني غير مفيده باسكو وقت ومن اكر بان كتاب لا لا وخ امنا لو جيتو لي صاي بو نيو دي امنا لو جيتو لي بان تيري لنجي دي مون نيك دا غا بتشوف لا لا سي ارفا لير سي شوف دي واخنا لو تشوف بان تيري واخنا لو تشوف هذا الكتاب بي مخ بان لا القران واخنا لو تشوف بو دا واخ القران لي لا كاي واخ سن بيو سن اجري سن ديغنتي اجري سيدي اجري باي بيس بو دي سيري لا واخ اجري بو دي سيري لا سيدي اجري وهو فهو صاحب السنه والجماعه كاملا xat xat kamula fii sunna sunna mat na ci way maanaam képp koo xamante ne ni jël na lépp lu nekk ci téere bii te weddiwu ci benn xaraf réeréewu ci dara mu ne kooku borom sunna la su mat sëkk te sunna mat na ci moom dëgg la léegi ma foomul mu xaala lii la ñu dégg lii la lii la dinaa yëgale si kon xanaa fan mu mais àggali si fii am solo wajulu shahid xam fan la wajulu shahid maa ngi koy wan nit ñi même bu ma yeggal ñoom ñu ngi koy def maa ngi koy yeggal yow léegi dégg nga maanaam mafhumul muxaalafa mooy wa man lam yuqir bi ma fi hada alkitab fa huwa lay saahibu sunna ok ba tey mu ne am na gëm loolu mu ne aw shakka fii aw shakka fii xarfin minhu

mu ne képp koo xamante ne nii. Uh-huh. wala képp koo xamante ne nii dafa réeree. wala dafa bañ wala dafa doyadal uh-huh. lenn lu ñëw ci alxuraan wala mu sikk sàkk ci. Uh-huh. wala loo xamante ne dafa ñëw ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne kooku dafay dajeeg yàlla nekk aji weddi. nekk aji weddi. aji baal ma aji aji weddi lan la. waaye dama ne képp ku weddi yàlla ak yonent bi aji weddi nga man ma laa gëm alxuraan ku ku weddi ak sunna loolu la wax laajal aji dama ne aji weddi lan la yéex loolu du yéex mu nga ne koo xamante ne aji danga danga danga weddi leneen leneen ci diin dama ne fan la wax kaafir nga yàlla ki da ko bind noir sur blanc yaa ngi non la na fi leer yàlla da ko bind noir sur blanc noir sur blanc dafa ne képp koo xamante ne da ngaa gëmul téeréem moom téeréem bii yéefar yéefar faman aqara bi ma fi hada kitab fa huwa saahibu hawa loolu lu muy teg saahibu hawa man mu ne saahibu hawa man mu ne koo xamante ne saahibu hawa ba day toog sama bañeex baaxat déglu yow wallaahi yow xamoon naa dëgg wallaahi doy na kii c'est maa ngi nii man la Malick Diaw kii xamul dara dina rek amul fekk amul fenn ñu ko wax kii réelkat la jàpp naa ko mu ngi nii day toog kenn déel réel amul fenn fu Imam Barbahari wax ne képp koo xamante ne toppoo teppoo téere bi yéefar nga saahibul hawa mooy lan man maa ngi ko bëri saahibul hawa mais kii vraiment day réel de am am na ñaan. portable bi ngi déchargé de. waaw non taxawal balaa moo daw. yaa ngi daw. parce que da nga wax wax bu rëy. da nga ne Imam Barbahari moo ne. xaaral wax la dama koy lii dama ne Imam Barbahari nee na Imam Barbahari moo ne dama bëgg mu yokk ci laaj ma ne ma liiral leen. wala leen leen kii nii yéen lay liiral ci kaw fu mu nekk nii fan la Imam Barbahari wax déglu leen waxal li wax ba ma ma ma bëgg c'est que dama bëgg a liir su ma liiree bu du am sens nee na moom wax waxoon yaa ne Imam Barbahari moo ne képp koo xamante ni wéet nga dara ci téeréen bi yéefar nga yaa ko wax wala déet. lii rek li ma la jox ah waaye li ma barbaat li ma yor de wax ko lii moo tax nangul wax waxaloo ko wax ba ma door lii ak fan la ko wax léegi dama bëgg nga wax fan la ko wax maa ngi lii yor affaire bi yaa ma ko fan la ko wax. wallahi wax ko wallahi wa rabbul kaab wax ko maa ngi yor affaire bi yéen dama bëgg a balaa maa lii nii wax mu noonu dafa moom li wax wax li nga waxoon ma lii. li may wax nii waaw yéen ñuy déglu moom dafa dama bëgg mu jaaral ci li mu jaaral dafa ma jox benn affaire pour ma lii ci imam Barbaha nee na imam Barbaha bi moo ne liir na affaire bi de dama ko bëgg lii ñëpp ngeen dégg ko mais ah, ah, man imam Barbahari moo ne baax na léegi da nga wégg ci téeréem bii baalem nag daa am message tontu voilà ñu ngi ci waaw vidéo bi jeex na dégg ngeen waa ji waat na ne billaahi wallaahi Barbahari musut wax ni ku weddi dara ci sama téere bi moom yéeféer la dafa am ñaar taxaw seetlu ñuy def mooy imaamul Barbahari soo demee ci ci charhu sunna mi waa ji di défendre ci maqaal cent 124 ci maqaal 124 dafay wax ni ci page 30 man téere dafay wax ni imaamul barbaxari mooy wax ni képp koo fekk muy jam saxaaba yi jàppal ni nit maanaam borom bànneexi bakkan la te borom képp koo fekk muy jam saxaaba yi rek jàppal ni nit ku bon a bon ku jara la te waa ji pour défendre bopp moom de maanaam Cheikh Baye laaj na ko lu mu xamut au lieu mu jàll ci leneen mu na boobu saxaaba yi ñoo teggi sunna te gis nga xadis boobu ñuy wax mus naa ko wax fii ci période ki avant bi période bi bëri coow di wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne képp génn uh, topp ak buur rek yow nangam sa yonent bi sax alayhi wasallam amiral mu'minin la wax de ñu bàyyi leen ci xel waxul ay gouvernement laïc ki ak yooyu de laïcité yi de amiral mu'minin la wax ku julli ci daje moom bokkul ak benn président bu ñu fal ni moo xam Euh, président jomay fay wala président Macky Sall ak yu demé non déedéet amiral muminin la wax hadith bi lu du place am dina ci musa ñew nak indi waxtan bu yaatu inshallah rabbi imam barbahari mo wax ni kep ko fek muy jam sahaba jappal nit ku bon la kon buñu sukkandiko ci barbahari waji mom ku bon la kenen ki euh, wahabi parce que nee na sahaba bi mo teggi sunna mo teggi sunna beneen bi ci des mooy soo demee ci ban danga ko fàttee noté ci barbaxaar yi ci maqal cent quarante sept huit côté yooyu mu ngay wax ni moom imaamul barbaxaar yi mu ne euh, bul gis nit rek ne ko diw ahlu sunna la daganu ci yow nga gis nit rek naan waaw diw ahlu sunna la mu ne nit fii ak léppi lépp lépp sunna dajewut ci moom kenn waru ko wax nitu sunna kenn waru ko am sunna nit daal ba même boo amul quatre-vingt pour cent vingt pour cent dese la wala nga am quatre-vingt-dix pour cent dix pour cent dix dix dixième kii bi jafe la xamal ne yow nekk góor ahlu sunna kenn du la boole ci ahlu sunna wal te waa ji moom loolu lay def naka jekk waxaa bi boo cëkkalee tuba rek ñu ahlu sunna wal jamaa legi nak ma andi page bi waa di weddi ci sharhu sunna euh, ban page ti la waay hmm. page euh, vingt-huit c'est-à-dire ki da ngay dugal nit ñi lay ko sen bop voilà li waji di wat ni ni mangi wat yalla billahi wallahi barbahaari musut wax ni ku wedd dar ci sama téere bi yow yéeféer nga bokko ci génn l'islam waji moko wad ni bar bahari waxut lolu legi ni xol lan la imaamul barbahaari wax fima tek ni suri bi ima ci maqaal legi li gëna doy war moy ci 103 xol li barbahari di tere wa alam rahimakallaahu annahu laysa bayna wala ñu kii sax mooy nang yalla na la yalla yeeram xamal ni nit ki dara doxul digganteem mu nekk jullit ak yéeféer fii maanaam mu mu jéem a critiquer yaa ni jéema di liñ bëtu lenn ci li yàlla wàccee di ko jéem a weddi di jéem a yokk wala di wàññi wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu yonent bi addu ba ñu tëj buntu boobu wala yàlla wàccee dara nga ne di liñ bëtëg di yokkoog di wàññeeg di weddeeg di critiquer naan noo yàlla def na fi ak nee na loolu rek moo dox diggante nit mu nekk jullit ak yéeféer cest à boo defee boo critiqué lenn ci li yàlla indi rek yow nekk nga yéeféer ci saasi léegi sama ma maxallu shaahid mu ne fattaqillah rahimakallah wanzur li nafsik wa iyaaka wal guluw na nga moytu ëppal wa iyaaka wal guluw fi diine na nga moytu ëppal ci diine fa innahu laysa min tariqi lxaqi fi shay'in imaamul barbaxaari mu ne maa ngi lay moytu likuloo da nga ragal yàlla te moytu ëppal ci diine mu ku ëppal ci diine rek xam ne tegul jotewul dara ci dëgg ku ëppal ci diine nekkul ci yoonu dëgg xam ngeen fii loolu la Barbahari euh, digle lii la alquran di wax nag ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba da ngeen di digal nit ñi lu baax ngeen fàtte seen bopp te yéen a ngi jàng bu xanaa da ngeen dof moom moo tere ëppal ci diine ndax nee na ëppalkat ci diine jotewul dara ci yoonu dëgg dëgg dafa jaar ni moom mu jaar na le ci maqaal 130 euh, ci maqaal 103 la ci même page boobu ci même boobu de fi ma teg suuri bi nii fii la wax ni wa iyaaka wal xuluw maa ngi lay moytuloo ëppal ci diine fi fi diine xoolal maqaal 104 maqaal 104 li waa ji doon weddi li waa ji doon weddi moo nekk nii mu ne billaay wallaay barbaxaari musut wax ni ku weddi dara ci sama téere bi yéeféer nga léegi ñu liir ci maqaal 104 imaamul barbaxaari wax wa jamiu ma wasaftu laka fi hadha alkitaabi fa huwa anillahi tabaraka wa taala wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba def ngeen liir ko seen bopp wa jamiu ma wasaftu laka fi hadha alkitab fa huwa anillahi tabaraka wa taala wa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa an ashaabihi wa an ittaabiin wal qarni thalith eh, ila al qarni rabi fattaqillah ya abdallah wa jamiu ma wasaftu laka lépp lu la mel lépp lu la indil lépp lu ma la bindal fii haadal kitaab ci téere bi wala ñu lii lépp ñëwaat ci firi bi wa jamiu ma wasaftu laka ala hada wa jamiu ma wasaftu laka fii haadal kitaabi huwa anillahi tabaraka wa taala wa an sallallahu alayhi wa wa an ashaabihi wa an ittaabiina wal qarni thalis wa ila al qarni rabi fattaqillaha ya abdallah wa alayka بالتصديق والتسليم والتفريد والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة fa asa ci benn bind fa asa yaruddallaahu bihi ci beneen bind fa asallaahu an yarudda bihi xayraanan an xayraanihi aw saaxibil bid'a an bid'atihi aw dallan an dalatihi fa yanju bihi fattaqillaha wa alayka bil amri al awwal at atiq wa huwa ma wasaftu laka fi hadha al kitab fa rahimallahu abdan wa rahima walidayhi qara'a hadha al kitab وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من استهل كبن بند من استهل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين وقد رده كله ليرنا ليرنا ñu ñëw ci firi bi Barbahari dafa wax ni wa jamiu ma wasaftu laka fi haazal kitaab lépp lu ma la indil ci téere bi lépp lu ma la mellal lépp lu ma la jàngal ci téere bi fa huwa anillaahi tabaraka wa taala wa rasulillahi sallallahu wa sallam lépp ci yàlla la jóge lépp ci yonent bi la jóge sallallahu alayhi wa sallama wan asxaabihi ak ci saxaaba yonent bi sallallahu wa sallama cest fii waxut ni lépp lu ma wax direct ci yàlla laa ko jëlee c'est-à-dire alquran laa ko jëlee de walla ma jëlee ko ci yonent bi de walla ma jëlee ko ci saxaaba yi de waxut loolu de xam nga su waxoon loolu day tane bu newoon lépp lu ma wax ci alquran laa ko jëlee walla ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam walla ci saxaaba yi walla ci taabiina yi walla ci atbaa'u taabiina yi soit benn ci lay nekk mais moom dafa lépp lu ma indi ci téere bii rek ci yàlla la jóge ak ci yonent bi cest alquran la xadis la waxu saxaaba yi la waxu taabiina yi yëpp ñoo ci daje xaw ma ndax baa ngeen sew-sew bi mu ne lépp lu ma la melal ci ci téere bii rek jàppal ni ci yàlla lu jóge ak ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waan yi ak ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wa anit taabiin ak ci taabiina yi mooy ñu topp ci saxaaba yi ñu gis saxaaba yi te gisuñu yonent bi wal xarni saalis ak ci xarnu ñetteel bi ilal xarni raabi jëm xarnu euh, ñeenteel bi lépp lu ma man Bara Baaxaare ci sama téere bi ci yàlla la jóge ci yenentu la jóge ci saxaaba yi la jóge ci taabiine la jóge ci atbaau taabiine la jóge ci atbaau atbaau taabiine la jóge mu ne kon nag fattaqillah ya abdallah na nga ragal yàlla yow jaamu yàlla bi yéen jaamu yàlla yi yow mi liir téere bi na nga ragal yàlla waaye léegi ragal yàlla julli ragal yàlla nangam léegi ragal yàlla lan barbaxaar daal mu ne attaqillaaha na nga ragal yàlla yaa abdallah yow jaamu yàlla bi wa alayka tasdiq maa ngi da maanaam war na la maa ngi lay dénk bi tasdiq ci nga dëggal nga dëggal lan nga dëggal alquran mu ne la déedéet maanaam mu mel ni kuy laaj rek quoi nga dëggal sunna mu ne la déedéet déglu ma rek wat tasdiq bit tasdiq dëggalal wat taslimi te nga nangu jébbalu wat tafridi lépp loo gis rek nga jàppeeku ko noonu comprendre ko comprendre ko xamal ni man Barbahari maa ko wax lépp loo gis rek jàppeeku ko noonu war ridaa te nga gërëm li maa fi haazal kitaab ci li nekk ci téere bi waxul li ne ci alquran ak sunna yi nii de déedéet wa alayka war na la yow bi tasdiq nga dëggal wa taslimi nga jébbalu nangu wa tafrid te nga nangu lépp loo dégg rek jàppeeku noonu war ridaa te nga gërëm li fi hagal kitaab ci li nekk ci téere bi allahu akbar mbete yàlla muy wax mbete yàlla muy wax naan ba mu waxee daal topp dégg rek ah dégg topp rek <laughs> mu ne wax <laughs> mbete yàlla muy wax astaghfirullah alazim dëggal te xam nga lii laa doon junj sànk ñoom dañuy wax ni noo tasawuf dañ naan sëriñ si talibé amuñ droit xalaat talibé day gëm top lu sëriñ bi wax jeex na amatul luñ bëtt amatul ki ñu ne kon motax fu bono bono bon la ndax amuñ mayuñ kenn liberté wa légui ki mom nañ ne tass nañ ne mutasawif la ki de mom mm, imamu min min a'immati ahli sunat wal jamaa indahum ñom yuni barbahat nak ne yépp na dajé jébbalok nangok mm, lo gis xamni nonu la mako wax ak ha ah, té na nga ragal yalla nak ah te gërëm lépp lu nekk ci téere bi mu ne itam bul nëbb benn bul nëbb kenn wala taktum hadal kitab ahadan min ahlil qiblati bul nëbb kenn koo xam ne jullit la téere bi képp koo xam muy jullit rek na ko xamal téere bi loolu liñ ciy déggee mooy boo seetloo wahabi yu ni ku ci mun firi alifun baawun rek ñu ci ëpp ci ñoom majeure partie bi topp leen moo xam saudiyal moo xam Sénégal la moo xam Guinée la Gambie wahabi bu bu am darajay wax ñu koy déglu rek bokk na ci téere yi mi firi mooy sharhu sunna loolu seetu leen ko c'est parce que imaamu Barbahari daf leen dikk téere bi ngëne li ci nekk te nañ ko jàngale buñ ko nëbbu na yàlla yaram yërëm képp ku ko jàngale tasaare ko moo tax wahabi yu ni dañu tasaare téere Barbahari bi di ko jàngale njortu naa bopp lii moom wóoruma mais njortu naa ni wax ji bokk ci li leen poussé waxaa bi bu am socc bu gudd cëkkaltewu ba rek ne léegi kaay leen ma jàngal euh, sarxu sunna bu barbaxaari parce que barbaxaari dafa wax ni wala taktum bul nëbba euh, hadal kitaab ahadan min ahlil qiblati bi da ko tasaare ci jullit boo ko tasaaree après lan fa asaa yaruddallaahu bihi xayraanan an xayraati yi amaan na nit ku nit ku nekkoon ci cànku de ak riir ak teel ak yooyu noonu amaan na yàlla boo ko jàngalee téere bi mu delluwaat aw saay bidaatin an bidaati wala nga jàngale ko ki nekkoon ci bidaa mu jàng téere bi dellusiwaat ci sunna génn ci bidaa boobu aw daalan an wala nit ku réeroon ngeen jàngal ko téere bi mu ci réeram boobu waaye téere boo xam ne téere bi ci boppam la téere boobu nan la mën a jubbantee nit bii may wax sharhu sharhu sunna bu barbahaari wallaahi al azim wallahi azim laa wax ñi ko sharx ci boppam moo xam ku yor micro di wax ni audio comme ni Ahmed Lo def wala ni ñoom wala nga yor sa xalima di bind pour sharxu téere bi amul kenn ku ko def lu dul ñu wax ni Barbahari moom am na ci waxam yoo xam dañ koy dégg noonu rek bàyyi ko waaye moom du wax yenn maanaa waaye léegi yow waxoo waxu yenn maanaa bëgg nit ñi di jubee ci sa wax yenn maanaa yooyu loolu naka la mën a nekkee Barbahari mu ne bu leen nëbbu téere bi ndax saaxib bidaa mun na jóge ci bidaam ñëw ci sunna ngir téere bi fayan ju bi mu daal texee ci téere boobu mu ne fattaqillah kon na nga ragal yàlla wa alayka bil amril awwal war na la ci nga dellu ci mbir mu njëkkam ci diine bu njëkk bi al atiq diine bi nga xam diine birut la war na la wa alayka bil amril awwal al atiq war na la nga delluwaat ci diine ju dëgër ji diine ju birut boo xam ne kenn yokku ci kenn wàññiwu ci war na nga dellu ci de léegi diina jooj fan lañ koy jànge <laughs> ci ci alxuraan la ñu dem jàng ko ci wax saxaaba lañ koy jànge fuñ koy jànge i barbaari la wa huwa ma wasaftu laka ma la mooy diinul atiq mooy lii ma la bindal lii ma la jàngal ci sama téere bii di sharhu sunna subhanallah mu ne fa rahimallahu abdan yal na yàlla yërëm jaam boo xam ne wa rahima walidayhi yàlla yërëmaale ay way juróom jaam ba nga xam ne xara ahadal kitaab jàng na téere bii wa bassahu mu tasaare ko jàngu ko rek noppi de mais koy jàng def comme ni Ahmed Lo def ba pare tasaare téere bi wa amila bihi di jëfee nag li nekk ci téere bi cest à ci li nekk ci téere bi boo gis buñ la tegalee ak nitu bidaa nga tànn yahud bi bàyyi bidaa bi bokk ci téere bi digle de mu ne jëfee loolu comme ñun tas mu sawi bu toogoon ab waxaabi jugu fële fekk benn yahut wala benn nasara toog waxaabi bi yahut bi lay gën a respecté ci ki nga xam ne suufi la ndax suufi ñoom nee nañ mu nitu bidaa la te nitu bidaa jëflante ak ñi la ñoo moo ko gën a sedd mu ne ndax nitu bidaa lépp lu mu doon ci bonte rek am na lu mu nëbbul ko lu ko gën a bon mu ne kon warnal nag nga dellu ci téere bi jàng ko yàlla yàlla yërëm képp koo xam ne jàng na téere bi tasaare ko wa amila bihi te jëfe li na ci téere bi wa daa ilayhi ba pare woote li woote jëmale ci téere bi wax tajja bihi di layoo téere bi di ko layal di layoo téere bi ay mbiram képp ku def loolu fa innahu képp ku def loolu ndax téere bi diinullaahi wa diinu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam téere bi diine yàlla la ak diine yonent bi sallallahu alayhi téere téere bi mooy diine brut li ma jàngale mooy lislaam bu set fa innahu képp koo xam nag man taxala ci beneen bi nag man istahala shay'an xilaaf ma fi hasil kitab képp ku dengi dengi uuteeg jëfee leneen lu uuteeg li ne ci sama téere bii di sharhu sunna wax ji mbokk bi doon wax mu ngi nii nag mu ne fa innahu kooku kooku def loolu day laysa diinullaahi wa diinu rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ah, fa innahu laysa diinullaahi bi diinin ki def loolu diine woowu diine yàlla mu ngi nii képp koo xam ne weddina lenn lu ne ci téere bi kooku day diine woowu diineb yàlla kooku moom topp diine yàlla te lan lañ waxoon na dina inna laahil islaam yàlla diine mooy lislaam képp ku defee ku weddi bàyyi dara wala dangi dangi dara ci téere bii di sharhu sunna xamal ni kooku nekkul ci diine yàlla kon kooku lan la def waqad raddahu kullahu kooku dafa delloo léppay diine yàlla ku jang téré biir sharh sunna selon Barbahari wedd ci ben haraf yow jappal ni mom da nga wedd yalla nekko ci diiné l'islam kuko def rek yow nekko ci diiné l'islam lii la mbokk bi doon wax kon yow ki doon wax Cheikh bay xawma waxnu turam ne ma jàppul turam yow mi doon wat ni billahi wallahi Barbahari waxut ni ku wedd dara ci téré bi yéfer la wax jaay ni Barbahari mo ne ku uteeg ben haraf len lu ne ci téré bi xamal yow nekko ci diiné yalla ci benen diiné nga nek te yow sax. da delloo lépp yàlla diine yàlla bi da ko sànni nale xalab ko da ko delloo ba mu jeex takk barbaxaari mu ne ku weddi dara ci téerim bi dafa delloo diine yàlla rejeté l'islam nekk jullit moom mu ne xam nga comme na la mel dafa mel na nit koo xam ne kamaalaw anna kamaalaw anna abdan amana bi jamii ma qaala allahu tabaraka wa taala illa annahu shakka fi harfin qad radda jamia ma qaala allahu tabaraka wa taala wa képp koo xam ne weddi na sama téere bii na ngay génne ci diine yàlla xam nga comme nan nit koo xam ne gëm na waxu yàlla am yenn lu mu weddi ci benn xaraf mu weddi ci alquran kooku dafa weddi lépp yàlla comme ku weddi benn yonent comme nga gëmoon yonent yëpp weddi yonent yàlla Isa dañ lay considérer yéeféer ku gëmoon yonent yàlla yonent yëpp weddi yonent yàlla Muhammad dañ lay considérer yéeféer Barbahari ne ku weddi benn xaraf ci téerim bii rek da nga génn ci dénn lislaam comme ku weddi benn xaraf ci alquranul karim subhanallah mooy daf mel ni rek nit ku seede woon baat seede yi te taat ko nangu lu dul ci nga sellal sa yéene gëm ko ànd ak yaqiin naka noonu itam duñu duñu duñu duñu nangu dara loo xam ne euh, dafay weddi dara ci sunna gëm leen na maanaam sunna da ngay gëm lépp sunna bu wér gëm lépp Barbahari de lii la nii la nii la melale bi dayu bi la jox téeram mu ne itam na nga bàyyi wa daa anka almaxakka na nga bàyyi ay liñ batu di gëstu di jéem a compliqué di liñ batu téere bu ne bu ko def de wala jaaja hmm? di liñ batu téeram bii kii def loolu fay fay naw laysa min diinillaahi bi shay'in fii shay'in kooku de dara ak diina yàlla képp critiqué téeram bii am loo ciy luñ bët di jéem a toppatoo noo juum na fii nii képp ko def loolu mu ne jote woo dara ak diine yàlla yow diine yàlla dafa jaar droite yow nga jaar gauche lii la Barbahari wax léegi nag mbokk yi woote woo ñoom ahlu sunna wal buñ koy kii dañ naan non Barbahari moom imaamun min min aimmatil islam nangam lay wax de te kii bu doon ab suufee ko wax moom kooku ki safaraam dafa leer bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg safara moom leer na bu yàgg bu doon ab suufee ko wax ndax lii la ñu ja lii la ñu jamee Serigne Touba lii la ñu jamee euh, El Hadj Malick Sy lii la jamee Cheikhul Islam Cheikh Ibrahim lii la ñu jamee bu maanaam sufiyanke ñi bind Cheikh Abdul Qadir Jelaani Imaamul Ghazali euh, ñi ñuy jam ci tasawuf yëpp lii lañ leen di jamee Cheikh Tidiane radiyallahu anhu yu mel ni lañ leen maanaam astaghfirullah astaghfirullah wax yoo xam ne dafay dafay dafay wone màgg nitu yàlla la yàlla di may euh, may mu sant ci yàlla ñoom ñu jël wax jooju génnee ci kooku ci lislaam te fekk kii li muy wax nag du sant mayu yàlla de bokkul ak li ñu leen def de yàlla may la dara nga sant ci yàlla bokkul ak li kii di def de kii dafa jël téeréem bi ne képp ku ci wet di benn xaraf rek yow génnañ ci lislaam léegi comme ñoom lii la ñu saaga ne lii moo tax tasawuf bon kon kay wahabisme lii moo tax mu bon parce que la ñuy wet la ñuy tuumaal nit ñi di wax ñoom la nit yi kii maanaam li ñuy saaga chaque jour mu ngi nii ci seen téere ne wattu wattaaral li mbokk mi doon weddi di wàcc yàlla ni amul ci téere barbaxaar yi mbokk téere bàyyi nii maqaal 104 kooku euh, doon wax ak Cheikh Baye dama nga liir dama nga liir ko parce que fois page mën na wute mbokk yi c'était pour c'était juste pour wone liñ yàgg wax ci suñu silsil rek ab wahabi lépp lum la tere xamal ne ci lay nekk moom wahabi moo lay ne kaas ndox mi bu ci naan kaasu ataaya nga teg kaasu ataaya bi moom mu jël ndox moomu sangu ci fóot ci bal euh, fobere ci këram naan ci togg ci sang ci ay xasam sang ci ay mbaam te moom moo la te moo la ci teroon naan kaasu ataaya te moom ci la naana naana naan ba biir bi fees waa bi nii la mel moo tax képp ku topp waxaabi yu nii naan da ngay xeeb sa sëriñ wallahi yaa ngi dugg ci loo xamul ndax lañ lay wax ni moo bon ci li nga nekk ba tax nga war a bàyyi loolu ñoom waxumal duble de mais dañ ko multiplier dañ ko multiplier yi dem léegi nag mu des ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci ci tasawuf ngal la nañ góorlu delluwaat ci cosaan lillahi la maa ngi leen di ñaan te yàlla tax nañu dellu ci cosaan yi nañu dellu ci cosaan yi nañu dellu ci cosaan ñi nañu jàng téere mag ñi koo xam ne murit nga dal jàng téere Serigne bu yi di jàng téere sofiyanke yi yépp koo xam ne taalibe Baay nga naka noonu taalibe Tijaan Tiwaawan naka noonu xaadir laayeen ñasen képp koo xam ne yaa ngi askanu ci sëriñ ngir yàlla ak apéron tëm dellu leen ci bindu mag ñi jamono jaxasoo na nit mënul jubantikoo ci mbedd Jamanu jaxasoo na dellu leen ci mbind magni ñi lillahi wa rasulihi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim dina ñewati benen numéro inshallah rabbi ñu xaar mbokk mom mbokk mi gannaaw bi setan seetaane ba pare ñu lay ñaan nga bëss fi ñu bind jëm mu fekke gande ci chaîne bi nak bëssal fi nii ñu bind s'abonné après nga activer cloche bi ni mën nga tamit wax sa xalaat yi ni si commentaire yi lii nag ci fay dara te dina tax video buñ dugalati di ci jot jangin jëf